boobu tamit ñu ngi ko tënk ci ñaari fànn bi ci jiitu mooy ñi nga xam ni seeni kër dafa inondé eh, ñu nekk ci biir kër yi génnuñu ko ak ñi nga xam ni dañ leen a génn ci kër yi yóbbu leen ci site de recasement yi eh, li ci jiitu mooy eh, dina am benn sensibilisation boo xam ni dina dem ci ñoom def ko waxtaan ak ñoom ci matuwaay yi nga xam ni war nañ koo jël ci wàllu cet ba nga xam ni situation boobu di wàllu inondation bi du leen indil ay jafe-jafe ci seen war gu wàllu wér gu yaram loolu itam équipe yi tàmbali nañ ko ñi ngi def li ñuy tuddee des visites à domicile ñi nga xam ne ñi ngi ci ndox mi génnuñu ko ñi ngi leen fay fekk ñi nga xam ne tamit ñi ngi ci site de yi ñi ngi leen di fekk ci site de recasement yi di waxtaan ak ñoom ci aspect yi nga xam ni ak matuwaay yi nga xam ni buñ ko jëlee rek euh, seen wér gu yaram dinañ ko mën a ñoŋal Euh, ci biir loolu tamit am na ci ay kit d'hygiène yoo xam ni dinañ leen ko jox di d'hygiène yooyu tamit dinañ leen ko jox ngir mu jàppale leen ci yenn euh, fànna yi nga xam ni dañ koy yittewoo euh, beneen bi ci tegu nga xam ni tey jii moom it tàmbali nañ ko mu ngi jëm ci wàllu opération technique yi opération technique yi li tax mu am solo mooy bépp kër boo xam ni ndox mi dugg nañ fa suñ ko génnee rek service d'hygiène dafa war a dem pompe ko ngir doomu jàngoro yi nga xam ne ñoo fa nekk yëpp ñu mën leen a faagaagal donc loolu tàmbali nañ ko démb ak tey te dinañ ko continuer muy kër goo xam ne rek ndox mi génn nañ ko ñu dem fa dem pomper ko euh, fi mu toll nii nag ñu ngi ci euh, li wër euh, jumaa ji muy kër kilifa yi wër jumaa ji tàmbali nañ ko kër yu ci bëri def nañ ko résidence bi tamit ci la bokk. Euh, sunu paree ci loolu tamit dinañ jublu ci quartier yi nga xam ni mooy quartier yi nga xam ni ñoom ñoom la mbënn mi gën a sonal euh, am ay opération yoo xam ni euh, puudar lay doon ñu wër côté yooyu yëpp dëkk bi yëpp dinañ ko puudar ngir wàññi yi nga xam ni mooy xeetu yooyu nga xam ne mën na joxe jàng profitoo rek ci occasion bi di remercier autorité administrative yi nga xam ni bi inondation yi amee ba léegi ñi ngi nuy jàppale ci wàllu liggéey bi mu jëm ci wàllu expression de besoin yi loolu itam ñi ngi leen ci remercier bu baax a baax di leen ci sant di leen ci gërëm di profito tamit di di woo waa mairie bi lu dem ni wa lu demee ni mairie bi di leen woo ci wàllu jàppale gi nga xam ni war nañ ko mën a jàppale eh, du ni service bi sax waaye askan wi ci fexe ba produit yi doy pour que ñu mën a dugg ci kër yëpp daal di koy décontaminer désinsectiser ko